ngir am ay xibaar yu leer te wóor ak lépp lu xew ci actualité nationale et internationale abonnez gaaw ci cette chaîne bi di ASG Production La ilaha tey du mercredi 13 avril 2022 Yamok, Fukifan fan ak es ci corps. koor képp kuy que faal wala yaay faal mboolem xel yi ak khalat yi ñu ngi fii ci jannatu maxwaa plus précisément que Khalif général de baay faal Serigne Modou Moustapha Fall ibnu sëriñ Moodu Mbend Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ba mboolem naal yi mu naal liggéey maamam ju baax ja maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridin mu defee ko ni ko bëggee ak ni ko soobee bu ñu gisee bile environnement bu ngeen gisee image yi tey ngeen xam ni tey bis spesial, ya la ñu di wax kumte ñaareelu kumte yemook fukki fan ak ben ci wér ko mboolem bay fal yi ak yaay fal yi dajaloo fi ci bay fal bi nek ci jantul maxwaa kepp la cheikh ibrahima fall babul muridin ci ndigal gi nga xamni jambar ja ki dimbali l'islam dimbali aduna cheikh ahmadou bamba xaadimul rasoul le sauveur de l'humanité joxon nako ndigal jambar ja babul muridin moom cheikh ibrahima fallam ci mu gatandu ko ganam gi ci wéru koor téru ko téral ko lolé donon ndigal go xamni mbollem ku fi wutu maam cheikh ibrahima fall taxaway nga ko ba tey jii kii fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Amdi Modou Mbenda Fall di ko taxawe war koo yóbbu nag kër xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg lool te ànd wér ba moom itam mboolem naal yi mu naal liggéeyal maamam mu yeggale ko ni mu ko bëggee ak ni mu ko soobee jug waxtu fajar nekk ci waañ wi ande ak tàngoor bu metti lool ak saxaar si waaye ngir jëfe ndigal ko kër xalif general de murit ànd ko ak mboolem kër yi aju ci kër mam Cheikh ibrahim Fall nampu babul muridin nadie الله يلا sëñ bi waa baax na waaw waaw sëñ Fallou ngi nii waaw ju sëñ Cheikh may ko mu ñëw waaw Fall yaa ngi nii de yaa ngi nii njaarim yaa ngi nii Touba yaa ngi nii fi seen rek murid yi ko fi indi te jaar ko ci yéen addi yi Cheikh Fall ko def waaye kàddu yi nga ñoo Fall dugg na lool de yaakaar naa boo lëggee dina wuute te fi nga koy xamee mooy bu sëriñ bi jógee bay fatu ñëpp dañuy tëdd bu sëriñ bi jógee bay fatu boo yemu seet foo tëdd ñëpp bay tëdd dootuñu taxaw tuub nañ ko dootul am nañu jéggal ngir jëmmi Cheikh Fall ak bëgg rek la waaye du ak xam dootul am su amatul nee na bu amatul jéggal nañu bu amee nag baalu ñu nu jéggal jéggal leen ñu mburu maa nga ne di dugg lépp a ngi ñëw noppi na sëñ daam noppi na waaw lépp a ngi nii faal teg lee Seex Baay Faal taxaw moo jëm njaareem ne ci seen i joor ci sa jàmmoñ moo jëm Touba ci borom Touba waaw ndax mboolem njabootu Serigne Touba bi liggéey bi kenn ku nekk la ñuy fexe ba liggéey bi egsi ci yow kër gu ñu dugg rek la ko dalee ci kër sëñ Mourou Moussa Mbacke ba mu jeex góor ak jigéen da kenn ku nekk da ciy am ba ni mu koy eggee ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada noonu lañ ko defe Fall góor ak jigéen ku seera Fall yéen ko dabul góor seera fa yéen ko dabul jigéen ba kër sëñ Touba daj kon sëñ am di Fall Modou Mbène ñu Modou jaa ngi dellu ñaan rek nga gën koo jekku de waaw kon xam naa Serigne Cheikh Serigne Saliou nee na Serigne Cheikh la la la la la la la la sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ah, mbokki jullit yi mbokki rawatina mbokk yi ñuy suivre seen site internet bi di ASG production fii ci réew mi ak réew ah, di leen sant bu baax ci ànd bi ak safoo bi ni ko gisee ci ndorte liggéey bi muy image yi jiitu njëkkee nañ fële ci nga nekk jannatu maxwa kër xalif général day Baye Fall sëriñ am ni mu Mbène Fall yàlla na fi yàgg loolu tànn wér ba naa lim naa la liggéeyal maam ju baax ja maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babu Mouridine bu defee ko ni mu ko bëggee ak ni ko soobee ah, gis ngeen ambiance bi gis ngeen environnement bi di ko dalee ci 3 heures ñu dem ci waañ wa ci ndog yi ana nan lañ ko ba yegg si fii ñu yegg si muy fii ñu ko war a jébbal xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool lool lool te ànd ak wér ba mboolem naal moom it yim naa la liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu defee ko ni mu ko bëggee ak ni mu ko soobee seen site bi di ASG production taayut benn yoon ànd ak yéen li ko dalee fële Baye Fall nga di Janatu Mahwa kër xalif général de Baye Fall ba fii ci kër xalif général de Mouride ñu koy wax kër mag moom Cheikh Mouhamadou Mountakha liggéey baa ngi noonu kon xam naa ne daal di dugg ci mbooloo mi Euh, jëlaat quelques images euh, euh, image yu rafet macha allah Baye Fall yi kenn du ñoom daa sax indi ko rek mbokk taalibi yi nga xam ñooy safoo liggéey bii nii di leen sant bu baax a baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. nga gën a sóobu nag gën a jigu gën a dox. gën a gëm. <laughs> bàjjee na rek nag.